Ah, waa koñ bi nuyoo bu bu bu tedd ñii ma dalal fii ndax koñ bi koñu julit lañu koñu ñun ay nit yu baax lañu ñi nit yu bëgg gan lañu ay nit yu bëgg seen bopp lañu ah ma bëggoon nag président Doudou Wade bés bu yàlla defee nga gagné mairie ville bi nga jàpple waa koñ bi di nga waa Dakar bu baax a baax sa dimension intellectuelle yow président du Doudou sa dimension morale et spirituelle yakara dépassé na cadre Médina cadre Sénégal wane nga ko gis nañ ko té mun nañ koo seede dama bëgg dama bëgg bés bo falo incha ñu and ak yow koñ bi da am ay problème problème emploi maanaam xeyu ndaw ñi xeyu jigen ñi koñ bi jigéen yi dañoo bale bale bale ba sonn ah dañoo bale bale ba sonn jeunes dañoo set wicc seen néeg yi dafa set wicc seen walo yi dafa set wicc wante nag daa loo xamante ni si ah jigéen yi mu ñu ko saytu égout yi day bouché tout le temps fii day bouché tout le temps bug nag nga jàppale te ñoo loolu jigéen yi mu ñu ko saytu góor ñi mu ñu ko saytu état moo ko mën a saytu mairie moo ko mën a saytu sécurité bi tam bu daa nga nga jàppale leen baax a baax lii daal mooy message bi ma la bëggoon chargé nga dimbali ñu si te yow rek tax yaay Moussa Sall ñaari vote ngay def di nga woteel suma mag duduwaat sunu baay duduwaat sunu nijaay duduwaat kees bi keesu duduwaat la benn kees bi nag man Ousmane fay mii man ngeen fay sànnil bulletin bi neex naa ràññee bulletin bi neex naa ràññee depuis 74 ak léegi guubu dugub ji moo ñuy topp te ñi la dugub njiglaay la kon ngeen wote Doudou Wade pour la ville de Dakar ngeen wote Ousmane Faye pour la commune de Médina merci beaucoup. di nuyu ak moromam nuyoo mbokk niroo nitu ndakaaru ak nitu ndakaaru di kontaan ci ni ngeen ma yaatale ci bi ma fi ñëwee mais li ma doon wax rek léegi nitu ndakaaru yaatu rek la mën a doon mais bi ñuy campagne ba léegi mësuñu def toogaay bu mel nii déclaration yu bari déclaration yi bari dañu koy def te bu ñu koy def dañuy taxaw mais ñu ñëw toog ci benn koñ ngaraaf yaay walla maam teeruñu toog ak kaalaam yore kursam di ñu xaar njabootam gu jigéen ak ay sëtam nekk ci gannaawam taawam toog ay jarbaatam toog ay doom yoo xam ne dëkkuñu ci kër gi toog moom mu seede ne loolu moo tax ak rakkam a ngi ni toog moom mu toog nag di sedde di seede doom ci dëkku responsable politique yaayam yëkkati kàddu teg ko ci kawam ngoonte moon aminta li ngay jëkk a jàpp mooy doo doom doo too sa doomu papa ak sa doomu yaay yëpp doomu ñëpp nga yar boobu ñuy wax ci moom nag dinaa ci dellu si kanam mais dama la jàppane na nga jàpp nitu ñëpp nga doomu ñëpp nga jarbaatu ñëpp nga nga jàpp ne boo ku nekk ci ñëpp am na droit jubbanti la doom du bàyyi rek moo koy yar dinañ ko yar ci mbedd xaritu yaayam mbokkam àndandoo papaam walla magam ci yoon woowu nga jël loolu ci laa lay conseiller ñëw nga sama kër ci ay jamono am lu xew nga ñëw ma teg la ci yoon ne la lii ngay def parce que li ngay ut du tey lañ koy am du ëllëg du gannaaw ëllëg buum gu yàlla nëbb la lu yàlla nëbb la takku ci buum Yang ci lëndëm xamo fu mu ne man nga ko jot euleuk man nga ko jot euleuk mais bo bàyyiwul buum gi woni ko yap buum gi moy yar ak teggin yar nak ak teggin ci jamono yi nek nañ waxante deug ci jigen ñi le gën goor yi goor ñi jigen ñi yaruñ ño gën ci senegal ke goor ñi yaru jigen ñi bañ yaru ngonté won ñu ngi lay ñaanal yalla yalla nga guddu fan yàlla nga am dégg yàlla nga am déglu yàlla nga topp ndigal sa ndigalu waajur ak ñi nekk mag sa yaay li ci des nag ma dugg ci politik Ousmane fay Maguette géey ak ñi ma àndal yépp maa ngi leen di gërëm ci sunu yoonu tey am naa ci mbegte bu rëy rëy rëy ci fi ñi aw ci fi ngeen ma dugal ci ñi ma waxal ci imam yi ma seet ak ñi ma fekk seen grand place ñu julli ak ñi ma fekk seen jàkk rencontré naa ay nit yoo xam ne yi wax nañ ma seen bopp gën naa xam tey ne ndakaaru ñi ko yor pour fal nit ñu ngi toog seen place di xaar maa ngi gën a gëm tey ne ñii fal nit ñi nekkuñu ci convoi bi rek ñi ci ëpp ñu ngi seen biir kër di xool nit ñi di leen ràññee ñooñu nag bu ñu gisee xale bu mel ni Aminata Mbaye xool ko ci doxalinam xool ko ci kàddoom xool ko ci jëfam xool ko ci yaram dinañ ko mën a xàmmee ak xale bu jigéen bi leen romb di leen ciipatu di leen sereti ak di leen saaga tey gis naa ni am na ay nit yoo xam ne yéen ñi ma yóbbu ci ñoom wax nañu seen yar seen teggin seen bëgg seen parti seen bëgg seen yéene te nag respecté ci des li ñu koy woon tey mooy am na mbedd yoo xam ne tey ci Médina ñi fa aw yëpp xeex nañu mais ñun aw nañ fa kenn attaqué wu kenn attaqué ko loolu nag lañ doon ñaan ba su nekk ñu ne ñun yàlla nañu yàlla xiir ba duñu tooñ kenn mais yàlla nañu yàlla dimbali ba kenn duñu tooñ mais loolu seen yar ak seen teggin ci la bokk mooy continuer di wax waa Ngaraaf ne leen ñu ngi jëm ci élection élection yooyu dañ leen ci yokk ñu defaraat Ndakaaru ñun ñi nga xam ne fi la ñu dëkk fi la ñuy tabaski fi la ñuy waree mais dañ ko bokk ak ñi nga xam ne dëkkuñu fi mais fi la ñuy ute xaalis fi la ñuy liggéeyee fi la ñuy daane seen dole fi la ñuy jote seen yàlla ñun bu ñu àndee ci règle yu leer ci doxalin yu leer ci jikko yu baax ci déggoo ak waxtaan ndakaaru dinañ ko mën a tegaat ci yoon parce que nitu ndakaaru moom ala kulli alin li muy xool rek mooy ku baax ak ku am teraanga donc loolu moo tax ñu am yaakaar ci yéen bi ñu nekkee seen mbokk ba pare bi ñu nekkee seeni xarit ba pare bi ñu leen joxee cër ba pare te terewul ñu ñëw leen wax leen ne voix yi ngeen moom yéen a ko moomal seen bopp doo ko sànni mbalit dangeen koy maye ñu ngi leen di ñaan ngeen ñu may ngeen may ñu seeni kàddu ci woteel bi ci bulletin bi ngeen woteel ci Ousmane Faye ci mairie Médina woteel Doudou Wade ci mairie ville mairie ville li tax ñu war a ànd ak maire commune bi ñu fal ko mooy mairie ville li mu am da koy yónnee da koy da koy yéene daf koy jox 19 doom yi nga xam ne moom la am muy naroon ñun loolu nag maye loo mën maye reer loo mën maye añ joxe añ joxe reer dencal gan joxe añ sa njaboot jox leen reer dencal gan jox añ sa njaboot jox sa joxe reer sa njaboot dencal gan ci loolu lañ leen di ñaan moo tax ñu ñëw seet leen weenu ngaraaf ngeen jàppale ñu ci loolu ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm yàlla na ngeen am jàmm yàlla na ngeen fanaanoo jàmm yàlla na ngeen am jàmm ba di wàlle jàmm yàlla defal ñu suutura asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf jox ndey yi cër baay yi cër rakk yi ay rakkam magam ay magam bu fekkoon na mel na nga war a mel du ma fi toog de man weeru ma kon ma dugg sama néeg caabi sama néeg te yàlla te teggin moo ma toog fii waroon na tëdd bu yàgg waaye ma di la xaar ngeen xale bu am bu am tegg bu am kilifa bu bëgg ay mbokkam bëgg ñam mbay yalla nga yeggale ta tago loo yootu yalla naka bokk ñi ngay wër ba ngeen jël ndab li dal ngeen ma xam ta degg nañ leen yalla nak yalla mi leen yor yalla leen sàmm sàmm jëbul jullit yëpp mbay jërëjëf mbay jërëjëf jëf mbay waa maa di wax parti Ablaye Wade xale rek la day doog door ma dégg ko nag mag ñi ndax xuloo ak histoire mami xamu ko ku ñëw nii treize laajte mami ne mës na xeex su la ko waxee danaa du dëgg mami musul am histoire dénk naa leen ko nag yéen mag ñi tàllal leen loxo ndax day doog a door man Ablaye Wade laa mos a doon te moom lay doon ba faw du mos a dañ ndax Ablaye Wade ba ma koy doon ndax Ablaye Wade ba ma koy doon sama maam ca Bargny Géej muy bàyyi Assane Seck ku xam na ko man Bargny Géej laa dëkk lébu Bargny laa duma bu Dakar macha allah maa ngi ñaanal ñëpp nag di ñaanal ñëpp nag di ñaanal mame li mu ci yootu bëgg ko yàlla na ko am ak mbooloo mu jullit ak ñëpp si barke seen Fall waaw fa la nekkoon nekkoon nan fax wadd en tant que bibliothécaire mu ñëw kër ga boobu il était dans l'opposition mu ne mbay dama buggoon ngeen sampal ma ben cellule fii à la rue 11 angle Blaise Diagne sam pap woo mo en tant que taw mun ma pap ñewal nuyu sa pap Ablaye Wade ma ñew mun ma ñoo classe dañ koy sampal fi ben cellule à la rue 11 angle Blaise Diagne loolu motax tax Doudou Wade toogaayam bi du hasard lepp yalla daf ko programmer dama ko gis contane ñu ñu contane loolu demb la digënt sama baye ak ablay bokon classe c'était important ma wax ko Thank you.